Baye Modou Fall ñu gën ko xam ci Boy Djiné ak ñett ci ay nattangoom ñi nga xam ni jot nañ leen jàpp fi nga xam ni mooy ci Missirah ñoom nag nekk nañ ñi nga xam ni war nañ leen yóbbu nu mu gënee gaaw daal di leen jébbal section recherche bu gendarmerie nationale ki ko xamle moom mooy colonel Daviko Gilamani commandant légion gendarmerie est Tambacounda Kédougou. donc ay côté 10 heures euh, benn euh, mooy euh, suñu motocycliste gis nañ fi waaw donc bu ñu ko dabee ñu fekk ko station d'essence bi nekk euh, Missirah après bi ñu ko laajee ay question mu ne effectivement si la ne effectivement moom ak Boy Djiné ñoo àndoon après quelques minutes après après benn oto tamit ñëw benn oto particulier euh, euh, ñëw ci motocycliste bi bi ñu koy interro bi ñu koy ci la ne effectivement moom moo transporté woon Boy Djiné mais mais dafa wàcc ci biir dëkk bi donc ci lañ mettre beneen dispositif c'est-à-dire wër dëkk bi yëpp ensuite commencé di ko rechercher que élément yi nekkoon ci ci entrée euh, village bi mooy Missirah après seen ko muy daw ci lañ ko dab dab ko te bi ñu defee ci une vérification gis na ne effectivement moom la bàyyi euh, euh, Modou Fall alias Boy Djimé dañ fa ay matériel matériel bi ñuy utiliser souvent pour def ay ay cambriolage moom ngeen di gis donc actuellement ñu ngi préparé puisque waa Dakar ñoo yore l'enquête bi ñu ngi préparé euh, ci fàttali ci atum 2016 ki di commissaire de police bi fi nekkoon di Yaya Tamba moom moo jiite woon escorte bi nga xam ni bi ñu jàppee Boy Djiné ci frontière bu Guinée Conakry Carrefour Linkary moom moo ko jëli woon indi ko ba ci commissariat police bu Tambacounda xanaa rek ñu ni ñi nga xam ne ñoo fi yore kaaraange force de défense et de sécurité nekk nañ ñu xarañ ñoo xam ni saa su ne ki nga xam ne moom mooy bay Modou Fall Boy bu dawee bu yegsee ci diwaan bi ñu daal di koy teg ak ak Boy Sall. waaw waaye toujours continuer ma ma combat parce que toujours combat bi day avantage. non non may leen non may leen ma ma ma ma defal ko. Boy tey lañ ko tey lañ ko. toujours combat bi ma injustice.